بالإله المعين من جميع الأذى وكل لعين إنني عزت بالإله المعين من جميع الأذى وكل لعين سائفا عمتي لرب تعالى راجيا سقيه بماء معين ماسكا بالكتاب مسك دليل بيد الخالد البصير المعين وهو عسي ورفعتي وكنوزي وبي أرتجي خياد العيون من بي موت صعب عنيد قالوا تايا له عن موني وهو فقري وعودي وجليسي بعديس ذي المزايا المكين أحمد العامدين أحمد خوسي ولأبي بزاوة الكوكون يا إلهي عليه صل وسلم مع آل الله وآل اليقين من صعاب تبتلوا لوكيلنا خناداهم بنور عقل يقيني رب عبل استقامة وانطلاقا بالموادي والتمعند فيني يا إلهي يا من عليه اتكالي فك كبلي بعود أهل السفيني عجل الفتح والتجد بفيود مخجلات سكبا سكا بالدجون ربي وفكك ذي ولعني فإني بذنوبي مكبل في سجوني ربي إني asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi fii ci kër njabootuk Seex Mouhamadou Rokhaya jàmbaar jooju nga xam ne jëfam kenn dootu ko fàtte ci yoonu murit doonoon xalifa bu seex Moodu Maamu bu jëkk waaye doonoon jàmbaar ji nga xam ne sëñ Moodu Mustafaa lañ ko duppee ba noppi mu yar ko waaye def ci moom jom def ci moom fit def ci moom ngor waaye bëggam sëriñ Tuubaa kenn dootu ko natta bi jaxasoo waa kër sëñ Tuubaa yëpp ba tax gi nga xamante ne moom la ci biir këram la ñu ñëw. sëñ bi wax ndax mbir. bu dee bu dee bu dee day yow ngay moomu nga bokk ci ak ni ñu ci bokkee wax ci dadut dadut dadut dadut yomb ngi ngeen waxal ñu moo ñuy daxal daxal ñu wax mën naa ne ñu ñun bu ko bu ko bu ko bu ko waa Darou Salaam ñëpp gërëmee ba pare murid yëpp duñ ko gërëm Daaru Salaam nag ñoo ci jiitu ndax ci la bokk te fi la woote woon yoon wi bëggoon a gërëm ndax nit bu sosee loo xam ba ñëpp bëgg ñëpp gis seen bopp nag euh, ñëpp mel nañ ko gërëm te ngërëm gi nag ñun dañ koy sàkku nag ko nit ñi ak ñaan mu di ko fekk fa nekk ndax jubluwu lenn wut wutul aw tur taxutoon di ko def wut daraja taxutoon di ko def da ko doon def ngir dimbali taalibe wala ab taalibe dafa war di jëf biñ koy sos lettre bañ def ba ñu topp ba ma ko bindee am na mag ñu ca neen muy wax ak dañ leen ñun waruñoo toog am at moo xam ne defuñu suñu ñun nag war nañoo woote seet suñ li xam ne mooy suñu ñàkk bopp ñu jox ko Sëñ Tuubaa te nag di ko def te bañ di ko bàyyi nag loolu moom moo dox ba tey jii te yaakaar naa tey moom ñëpp waxuma na Daaru Salaam waaye murid yëpp a ngi ciy ndamati loolu ndax murid bu ne yaa ngi yéenee laaj yi di ko joxe loolu rek a wax ci moom almet bi moom sabab ji xam nga dafa bari dafa bari dafa bari mënu ma cee nettali ndax man mënu maa nettali loo xam ne déggu ma waaw lu ma déggee ci làmmiñam nag damay jàpp ni mooy waaye almet gi damaa fekk ñu koy joxe rek waaye moom wax dëgg yàlla musuma dégg mu wax ci ñun ñu nee nañ sëñ bi maamu mu dara sëñ Fallu waaye moom nagam net net lu ma ci làmmiñu boppam sama jëm ci rajo amu ma droit wax ci benn baat man lépp lu ma la nettali ci moom rek gin ñëw lay doon sama nopp te moo ko waxee ñi ñi ko xam te xam ma ci moom danañ danañ gëm loolu ndax jegewoon naa ko du ma ne kenn gënu ma ko woon jege waaye jegewoon naa ko loolu ma jegewoon naa ko waaw lépp a woo loo njëkk a tudd loo njëkk a te xalaat ko dama ñëw rek màkk na ndax ndax mm, boo déggee man la wóoruma wax ci moom mooy wax ci moom damay bañ loolu ndax koo xam ni lépp a mën neex. bone ko lu la gën a marqué dans lépp ndax nit la ko xam ne du wax nekk nit la ko xam ne du wax doy du ko def ci kilifa loolu doy na sax yërmande ji nag foo ko takk wees na ko denc lu ko ma sàmm denc lu ko ma dem damay wax euh, euh, keroog ak samay rakk ñoom sëñ Bass ñu toog man man daal dafa am phénomène bu xew boo xam ne léegi nit ñu koy wax te man sama bay damaa yar ma nekk ci wax ay at musuma dégg ci jëm wax ko diw ko sëriñam nit ñëw di wax ñuy laaj ba xam ne ku war a dimbali ku ñu a bàyyi ba ni kuy sëriñam ci lam te moom it kenn mus laa wax ne dégg na ko ci lam xëy na am na ñu ma pour nekk moom waaye musuma dégg ci lam ñoom mu ne diw ku mu féetee nag kuy sëriñam diw ab taalibe la daal ba mu saan wax lool sax mën la ab sëriñ kenn rek a suñu barke kenn sëriñ moom ndax moom damaa jël li sëñ Tuubaa sax day sori ci moom waaye njabootu sëñ Tuubaa gi ñoo ko gënoon ñoo ko gënoon jëmm ndax man la xaw ma ko moom sëñ Tuubaa dama ko jël ndax li mu daan tudd bari ñaar ñii daaw leen tudd lu bari ku yaroo ci ñaar ñii sama bàyyi daaw muy sëñ jëmmi sëñ Tuubaa ak jëmmi Cheikh Moussa ndax mosu koo tudd ay rongoñam gënut moo tax daaw leen tudd wala mu keneen ku ko mën a fréquenté tamit wax na la sëñ bi waxee du tudd sëñ Tuubaa ci turam du tudd Cheikh Moustapha ndax saa bu leen tuddee gis nga ولنبازغ ذوي العلوم بعلمي وذوي الجعل والجول ليعيني ولتبازر سبي تعلم تغنى وبيعصم جميعا من لعوني ولتبازر بي اليتامى دواما أنزم بي أبا عيني رب زدني علما وزدني يسعا fii ci bisu jàmbaar ji nga xam ne kenn dootul fàtte jëfam jomam ak ngorom gëmum sëñ Tuubaa waaye toppam way juróom ba sëñ Moodu Maamun bëggoon loolu maam Cheikh Anta muy Cheikh Moodu Rokhaya Mbacké ba tey ñu topp njabootam waaye ñëw ci doomam ji nga xam ne moom la dëkk duppee Maamun mu jege ko lool di jàmbaari sëñ Tuubaa sëñ Muudu Maawoon Mbàkke moom sëñ Muudu Roqee kàddu yi daanaka Allah ndax kii tax ñu def ay kàddu bu bariwutoon jëfam nañ ko xamee moom waaye day kàddu xamuñ ko woon te noonu la ñuy roy ci moom bokk na ci li ñuy roy ci moom loolu mu wax noonu sëñ bi ko nee na eh, taalibe bu yaafus mooy toog sëñ bi liggéeyaloon nga liggéey wala sëriñ bi liggéeyoon ngaa war a liggéey bu nga liggéey loolu nga sàkk ab liggéey yow da nga ko te la waxee woon ne ku bokk Daaru Salaam ku ne bu liggéey loolu it nañ wut bis boo xam ne ku ne da nga génne sama noppi dajale ko kuy sëñ Tuubaa ñu jox ma loolu mooy sabab bis bi eh, wax yi na waaye lii rek la dem nañ ba sëñ Saliou Mbacké yàlla na ko yàlla doon gërëm ne bi sëñ bi demee woote bi nay bisu ñaanal mooy tax ñu di ko ci ñaanal loolu sëñ eh, maa ngi soññee jamono ji ni mu léegi ma gis ci lu bëree bëri moo tax ma bëgg ñu yokk ko pas-pas yi daa ko doon wax fan yii damaa xeeb daal liggéeyu di def loo man man di xeeb naa loolu war nañoo def lu mu mën lu ñu dal liggéeyu Sëñ Tuubaa tey def lu man moo ko teg bu ñu doxee bu ñu doxee suñu Sëñ Tuubaa lu ñu mën Sëñ Tuubaa yéen ñu suñu lépp man foofu laa nekk te fa laay woo ñi ne nangu nañ ne may seen biir saa bu Sëñ soxlaa daal amatuñ loolu lañ gëm waaw kon nag Euh, bis bi du bisu wax bisu jëf li suñu bisoo wax dana sëkk di ñaan yàlla mbooloo mi yaa ngi fee daje rek ba àggale seen yéene ci liggéey sëñ Tuubaa ndax man loolu rek laa gëm loolu rek mooy dara suñu yéene ci liggéey sëñ Tuubaa yàlla ñu yàlla jàppale ñu àggale ko jërëjëf yawma ya ilahiya wajal amali zakiyan kazayil uyuni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 alhamdulilahi wasalla abada bokki bokki jullit yi bokki taalib yi ñu ngi yëkkati ay kàddu ci turu borom bis bi di sëriñ Cheikh Anta e, di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi tamay ko wér mbo mbooleem njabootug sëñ Modou Rokhaya gi ak mbooleem njabootug Seyduna Muhammad wépp di sant bu baax ñi wuy ci sëriñ Touba ci bis bi te ñëw fi di joxe si seenu ñaq te di ko jébbal sëriñ Touba mbooleem ku fi teg tànkam mbaa ku yónnee wala ku jàpp ci bis bi noo ci jàppeek noo ci yëngoo yàlla nga ci dajeek ngërëmal Serigne Touba di ñaanal sëñ Cheikh Anta ci bunt bi ak i rakkam ak mbooleem njaboot gi yëpp euh, borom bis bii nag di Cheikh Mouhamadou Rokhaya Mbacké moom xeej na moonu jur moom moo ñu yar ndax li de li bu nit jàngee ba ñëw ca lañ koy yar loolu lépp moo nu ko defal waaye wax ci moom mën naa yomb waaye mën naa jafe waaye nag mënees na cee wax loo xam ne dana doon ab bind ci man ak képp ku bëgg a jariñu ci yoonu Serigne Touba mbaa nga bëgg jariñu ci lislaam bu jëkk bi muy loo xam ne itam lu ñu dund la ak moom ñu ñuy seetlu ci moom ne képp koo xam ne lislaam rekk a la ñor boo ñëwee ci moom lislaam rekk ngay gis ci moom nit la it koo xam ne bu ngeen nekkee te ak taalibe rekk ñor la ngay xool ak taalibe rekk murid saadix boo dikkee da ngay jàpp ne foofu ci moom képp la murit saadix yam loolu nag bokk yi lu jafe la boole charia ak xaqiiqa te dara yàqutu loolu yombutu ndax ñu bari dañuy nekk dañuy topp charia bàyyi xaqiiqa ñu bari topp xaqiiqa bàyyi charia te moo ne benn mënu cee dem bàyyi sa moroom sëriñ Tuubaa mi ko xam dafa bind ne wa man yalij bahral xaqiiqati bila fulki shariati fa xumquhun jala kon sharia mënta dem bàyyi xaqiqa xaqiqa mënta dem bàyyi sharia sëñ Modou Rokhaya nag noonu la ko doon dunde bu baax a baax a baax waaye itam mu amoon nag ay sifaat ak ay axlaaq xamida yoo xam ne da ciy wéetoon bu jëkk bi mooy ku dëggu la woon ku dëggu la woon ci ay waxam ku dëggu la woon ci ay jëfam ku dëgg la woon ci képp ku ko yàlla booleel muy ànd ak yow la muy la la muy wax lay def la muy defet lay wax loolu yombut lu man ku ko ko wax mu nangu ko lu mënut ku ko ko wax mu gàntu ko nit la it koo xam ne ku fonkoon jëf la te néewoo ni wax ndax daana wax ni jëf bu matut lu wax ja bari bari du tax mu mat waaye jëf bu matee loo ca toftal ci ay kàddu mu doy sëkk kon xalla kalaamuhu wa kathura amaluhu jëfam bari woon na lool te daawul bokk jëf lu mës a ñëw da koy jëf ba mu mat bu ko mënul mu bàyyi ko nit la woon it ku xam bopp boppam ci mbooleem ñi ko yàlla booleeloon nga yilif koog mu yilif la mësta bàyyi ko ci làmmiñam luñ koy xeebe wala mu jëf lees koy xeebe sëñ Modou bu nit doon mat dama naan insaanul kaamil la nit la woon ku mat ndax ñaar la fi dajeeloon ba ñett ba ñeent bu njëkk bi ñi ko yilifoon ci sëriñ Touba di ay waajuram di doomi sëriñ Touba kenn ku ci nekk jox na la wàccuwaayu sëriñ Touba nangoo nekk sa doom nangoo nekk sa taalibe ba làq sa ngërëm te mosoo gis ci moom looy xebet ba mbooleem ku fi mas a jaar di sëriñ Tuuba seedeel nga ne sëñ Modou Rokhaya murit sa sa saadix la waaye kenn ku ci nekk itam seedeel nga ko ne lépp luy sab taxawaay boo waroon a taxawu sëriñ Tuuba àndoon nga kook sëñ Modou Rokhaya mu di la ca jàppale bu dee lum la war a fàttali la dina la ko fàttali bu dee lum war a ànd ak yow taxaw la dana ko ànd ak yow taxaw ndax dara ñoru ko woon nag lu dul yoon wi yoon wi rek a ko ñoroon loolu ku fi mas a toog di sëñtubaa tubaa nangul nga ko loolu ne yoonu sëñ bi rek a ko ñoroon ak gëm sëñ tubaa ku bëgg ko ku topp ko mbooleem ñi nga xam ne nag dañoo maase woon ak moom di di di ay maasam fonkoon na leen fonk goo xam ne nawloo leen nawloo goo xam ne bëgg leen bëgg goo xam ne ba kenn ku ci nekk jàpp nga ne yow la sëñ Modou Rokhaya gën a bëgg ci keneen jox la wàccuwaay jox la cër mbooleem koy nawleem rek am na fu mu la tegoon ñooñ ñëpp itam maase jël cër boobu delloo ko ko moo tax ñëpp loon ko ndaxte bala ngaa woo ñëpp dangay jox ñëpp lañu moom ba noppi nga jox ñëpp seen àq ak seen yelleef su boobaa ñoom ñépp dañuy maase deet delloo la ko tàmbalee ko ci Daaru Salaam gii mbooleem kum bokkal sëñ gaawaan boo ko gënee jege sëriñ gaawaan jox na la cër ba nga xam ko ci sa bopp ba jëlaat nga sa kàddu joxaat ko ko jël nga la nga yilifoon nit dénkaat ko ko mbooleem kum bokkal sëñ Moodu Maamun nawloo na la def la ci boppam safoo la faale la bëgg la ba nga yëg ni sëñ Modou Rokhaya mii am sëñ Modou Mamoun moo mat sëkk la ba tax nga jëlaat sa bopp ak sa njaboot dénkaat ko ko mbooleem ku mu bokkal sëñ Modou Mamoun nang nangul nga ko waaye ku mu bokkal sëñ Modou Mamoun bëggoon na la yërëmoon na la tafoon na la ci boppam noosoo woon na la mbooleem koo xam ne nag moo la yilif lam yilif ci yow mësu cee dégaase ay responsabilité bu dee lum la war a digal la dana la ko digal bu dee lu lum lu war a jëfitam du amut lu muy nee naa la léegi du bokk jëf ku matoon la mbooleem ku mu yilif taxawu nan na la nam lay taxawoo itam bu laajee alalam du participer ndoo kenn du laaj kenn doo koy génneel boppam jëf ko bu dee ay wax ca la la war a taxaw dana la ca taxaw bu dee ci tànkam la la la war a taxawoo ci dox dana la taxaw bu dee ci ay jëf la it dana ko jëf ku matoon ku ku mënoon nit nit nitam la nitam kun daan respecté lay doon kenn mësta xëtt war may nitam nit la koo xam ne wallaay du ab sëriñ rek waaye ab sa sa sang la woon sëñ Modou du ab sëriñ rek ab sa sang la woon euh, sëñ Modou boo nekkee moom lum la fonk fonk fonk fonk bis boo tooñee noppi na laa xam du fat du fat mukk ku tooñ ci moom laa gisee mu jëfe addiisub rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi mu wax ne unsur axaaka zaliman aw mazluman dimbaleel sa mbokk bu tooñee ak buñ ko tooñee ñu ne ko yaa rasulullah sa mbokk bu tooñee noo koy dimbale mu ne xanaa nga wax ko dëgg sëñ Modou mësta fat ci ak dundam ab tooñkat ku masa nekk ak moom boo tooñee woona la yedd la corrigé la wëlbatiku dóor laa dimbali waaye nga tooñ ñëw mu fat la te waxula dëgg sëñ Moro xëy da daw ko dafa kenn loolaa taxoon ku mas a toog ci jataayam doo tudd kenn ndax ku tudd loo wax ca moom bu ko ko dikkee mu ne la la nga waxoon ja ja ja jaarat ci sëñ Modou ku dëggu woon te it li tax kilifa gu mel noonu noonu baax ku mu jamonoonteel doo ko gëm di gëm di gëm keneen ndax doo gis loo ko yabe te doo ko xamal lu mu amee complexe ci yow ndax nee naa la léegi diineem matoon na ak taalibeem matoon na bu fekkoon ne dafa nekk sëriñ boo xam ne ragal ragal naa wax dëggub taalibeem ngir lu ko taalibeem xamal kon ak cëriñam dafay des bu diineem manqué woon it kay xool ci moom diineem da koy yab bu ak taalibeem manqué woon it kay xoolu taalibeem da koy xeeb waaye ñaar yii yëpp kenn mënu cee jaar yàpp yàpp ko ku siggiloon Serigne Touba ku sagaloon Serigne Touba waaye sagalewu ko ci aw làmmiñ ci jëf ak taxawaay bu ànd ak dëggu ci la sagale woon yoonu murit lu nit rëy rëy rëy rëy mbaa daraja mbaa nga bari alal ci kanamu sëñ Modou Rokhaya lu mu la war a wax dina la ko wax nekkoon na di ko dëgër di ko dëgër ci palaasu dëgër waaye di ko nooy ci palaasu nooy daa nga ko fekk muy kaf ku amul dara koo xam ne fàqiir la lañu ñu ko koy tudde koo xam ne wóor na la ni kii ku ko fekkoon muy wax ak sëñ Modou Rokhaya da nga naan déedéet sëñ Modou na ma ko daan dégge ak fa ma ko teg fekk ne la muy tàng ca kaw biir ga noonu la lewete woon euh, amul kenn ku jamononteeg sëñ Modou cib taalibe ku gëm sëñ Modou di gëm keneen benn ci man mm-hmm. du lim ma jur waaye dama ko naw ci ay jikkoom jàpp naa ne itam kenn wuruma te te bu ma jurutoon it maanaam damay ñaan yàlla moom mu jur ma rawatina nag ba mu juree te ñaanatuma yàlla it keneen juraat ma do donte ma mën a mën a tuta nekk te wóor na ma ne itam ku mu jur ak ku mu yar lu mën a fees sa bët mbaab sa sa nopp suñ borom teggil na la ko ginnaaw sëñ Modou Rokhaya lu waaye jëf ci lu baax jëfit la nu ab sang di mel mel na ko ci sa kanam ba bu lu su bët gisati ci nit euh, gisit la waaye bu dee mat mbaag mbaax mbaag jub mbaa mbaa nu ko baax di melawoo suñ ma roqee melowoon na ko ci sa sa kanam xajandoowul ci xol benn ci man man day gëmuma bëgguma toppuma yaakaaruma ku dul sees ma mu roqee ku ma ne yawa it sëñ moo doo tax ma ne la yawa waaye bu bu bu bu buñ ca génnee sëñ Modou Diarra la ca des amatuma ca ca ca soxla kon nag wallaahi laasim jikko yii ma wax ci moom kenn nettaliwuma ko dama ko dund ak moom kenn nettaliwuma ko te jikko la yàlla tagge yonante bi sallallahu alayhi wa sallam tagg ko ci juddu te yàlla nga ñuul kenn ci ab juddu wa innaka la ala xuluqin azim fa bima rahmanin fa bima rahmatin min allaahi linta konta walaw kunta faddan xalida al qalb lan faddu min min hawlik dama ne yoonu murid wii jikko ju rafet lan ciy toppib sëriñ looloo waraloon sëñ Moodu am ñu sant Mbàkke am ñu sant Buso am ñu sant Faal sant wu ne am na ca mbooloo moo xam ne kenn xamut nu mu te dara waralu ko loon dul jikkoom jikkoom rekk ko mësta incarné sëñ tubaa gi nekk ci moom mësta incarné sëñ tubaa gi nekk ci moom lam daan incarné mooy matu cheikh mouhamadul moustapha ma ko yar ndax sëñ Modou Moustapha da koo yar ci xam-xam yar ko ci xamal ko boppam yar ko ci ak doylu sëñ Modou diirub lu ku ma mën a nekk la koo mën a doon ku la mën a jur feesoo bëtub sëñ Modou loolu laay tax lu mu la bëgg a wax wax wax la ko kooku jëmm la joo xam ne yàlla nañu ko yàlla fayal meloon na ci daaru salaam noo xam ne wege woon nañ ko daaru salaam ragaluñ ko waaye dañ koo weg tax na oto foro daawul dugg daaru salaam tax na homme de tenue sañu te dugg daaru salaam def fi lu ko soob génnaat te tàgguur si Cheikh Modou Rokhaya tax na ab taalibe bu daaru salaam kenn du ko bunduxataal waaye bu taalibeeb daaru salaam jàddee bala koo kenn réglé moom moo koy njëkk a lijjanti teeg teeg teeg moom nekkoon na koo xamante ne nii bu la bu la waree dimbale mbaa mu war laa taxaw da koy ànd ak yow ba mu jeex takk lu lu mu laaj da koy def xàmmewul ki am ak ki ñàkk mbokk mu ñëw dana la safoo bëgg la teg la foo xamante ne nii da yaakaar ne jomb na la waaye nag lu mës a jëf ci lu baax fu lu baax yem fa la yem mësta ñàkk fayda maslaam mësta ëpp lenn mu mës sa ëpp lu mu mën a doon ci digg ba la ko yemale te xayrul umuri awsaatuha ku mat a ngoog ku ku baax a ngoog yàlla nañu ko yàlla fayal ci barki Sëriñ Tuubaa